la soirée Baye Balla Mbuub borom sama góor sama xarit maa lay ziar. Baye Balla maa lay ziar Fatma instant bi aw ma retour ah dégguma lu ah, lay ziar Baye Balla. yal na yàlla nangu dégguma ko ah ci micro bi aw ma retour. mais yal na yàlla nangu yoolu ziar wi. septième combat de la soirée armée la ak ki nga xamante ni moom mooy Mama Lamine. Mama moom moo jógee ci Petit Lo moom moo jàkkaarloog ñun ñii armée moom moo féete à droite. jërëjëf. maa ngi nuyu uh, suñu jarwaat bi toog fii Baye Balla di am contentement bu baax a baax di wax ni combat bi armée 2 la ak Mama Lamine di combat boo xamante ni mën nañ ni ñoom ñaar ñëpp dañoo bokk ci xale yi nga xam ne ay révélation lañu bokk ci xale yi nga xamante ni dañ leen di bàyyi xel mhm. ba pare ñuy mobiliser mbooloo ñu leen di topp ci stade yi kon buñ leen boolee rek mën nañ ni combat bu neex lañu boole waaw arbitre bi sifflé na ñu ngi léewtoo la soirée. ñu ngi léewtoo ñoom ñaar Fatma Fatma combat bi ñaari xale yii keroog bi ñuy def fi sufis bi. yaa ko def. ñoom ñaar dañoo waxante lu ne ndeysaan. ndeysaan ah. kii ne ko maa la ëpp doole kii ne ko maa la ëpp doole. arme deux Mama Lamine Mama Lamine jël na ko jàppante nañu. ci petit loo la jugee. daaf dafa dugg rek énergie duggaat fa. arme deux mii rek énergie la nekk. waaw kon dafa ah. jóge ci écrit ah. daanu fa. Ah. jëlaat fa keneen. kon dafa mel ni revanche lay wut si. tubaarkaal la ñaari yaa ngi noonu. waaw. ndeysaan ah, eh, placage ba sori na de. ñaari xale yaa ngi noonu Fatma ma jàppante nañu. munul ñàkk xeexu koral ma kor duurul ma duur la ñuy def noonu. koral ma kor armé du kor na ko. <laughs> ah Mama Lamine kor ko. Eh. boo duuree mu duur. boo duuree mu duur loolay koral ma kor duurul mu duur. ndeysaan mu nekk ne ñoom ñaar ñëpp règlement de compte la. waaw ñoom ñaar nag. loolu jaaxal na ma trop saa bu nu ku ci nekk dënn ngay wax ak sa morom. waaye loolu du dara loolu ay ñaari xale yu seen yaram tàng la rek. waaw bu ñu dee signature dañuy jaay jaay combat bi per pas la li may wax xam na ko. ah, ah des fois bu ñuy signature. Ah, waaw waaw Mama Lamine. Mama Lamine ak. mboot la mboot mu sori la. wala mboot bu sori la. daa ñorul mboot ma moo sori. ah mboot bi daa ñorul woon. mais Mama Lamine est-ce que nii mu def wóor na. non sukk di bëre wóorul. sukk di bëre. wóorul de. bay baa la sukk di bëre. daa wóor waaw sukk sukk di bëre. Ah. mën naa nekk des fois am na ci xale yoo xamante ni lii dañ koy entraîner. boo gisee comme ku ci mel ni tey ki euh, le roi des arènes bi war a bëri fii suba. lii daf koy entraîner. daf na ko ak Ama Baldé ñaari butu umu mi da koy teg ba pare jàpp fu wóor di bëre. Ah. waaye loolu nag des fois am na ci xale yoo xamante ni stratégie la ci ñoom. Mm-hmm. des fois mën nañu sukk jàpp ci kaw takk bu mu dëgër nga yaakaar ni da ngaa jékku am na noo ñëwee rek mën nañ laa bët. Ah. daan la loolu bëri mu du xarañ loolu. action bii waaw fi mu nekk dañu tëj bëre bi ah. arbit baa nga wax ñoom ah. ndengeñ waaw ndax dañoo jàppante ci kaw rek ndengeñante kenn jéemul dara bëre bi tëju loolu moo tax arbitre bi àtte leen parce que ndengeñ bu sax défendrul la loolu moo tax boo ko defee une minute rek dañuy àtte delloo si woon léegi na arbitre bi sifflé na ñi ngi continuer di wut ay pexe ñoom ñaar Mama Lamine mbokk yi moo féete ki nga xamante moom mooy arbitre moom moo féete à à gauche à la ak pied droit. waaw ndax ma. Ah. Ah, bi dal na di. waaw dóor bi dal na tànk ba jël na tànk bi. armée 2 ak Mama Lamine 2. mais waaw dañuy xeex ñaar ñii. ñaari booy yi ñoom ñaar ñëpp dañuy kor di dóor épercule. non dañoo xiifante waaw ñoom ñaar ñëpp dañuy kor. Ah, di dóor épercule. ku ci sa kurpañ yi gën a am impact nag. sa morom mën na wàcc. mais waaw mooy li ma wax rek xam nga ñoom ñaar fu mu nekk nii da leen di gis rek xam ni ñii ay ay ay adversaire de taille lañ bi ci des mooy ñaari xale yi dañoo contact ba os boo leen xoolee xam ni combat bi duñ cee liggéey moo tax ñoom ñaar saa bu ñu jàppantee ku ci nekk da ngay sa morom parce que ñoom ñaar ku ci nekk danga indi doole ku ci nekk physiquement da nga taxaw léegi nag fii nag combat bi day toll foo xamante ni expérience bi mooy gagné combat bi mooy xool bu baax la ngay bëre. Uh-huh. xool bu baax la ngay léwtoo. Uh-huh. xool bu baax vigilant ci uh-huh. combat bi. xool boo waree dem waaw waaw. nañu. jàppante nañu ñoom ñaar. mbokk yi. Mama Lamine Garga Dama Lamine armée 2. armée bu benn barak tuddee boppam. ndeysaan kii waaw ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ki nga tuddee sa bopp ndaanaan la. ndaanaan la. waaw ki nga ku ci nekk ki nga tuddee sa bopp am na lu mu def ci lamb. waay daay de la waaw nañu moytu koronte bi. mais na moytu épercule bi baaxul de. Oh, koronte bi mën naa génne leneen. waaw waaw épercule boobu baaxul. waaw kor épercule baaxul day wàññi mbër. waaw léeg-léeg kii ci la jógee kii ci victoire la jógee. armée moom ak Petit ndeysaan moo tax combat bi da koy jaral lu ne parce que teg la ñaari defet ci ci xale bu nekk ci yoonu wóorul ndeysaan man bu ñu bëree dama leen di dama leen waaw faaw nga ñeewantal leen parce que préparation combat dafa metti waa booy yi bu ñuy préparé combat lu ne la nit daj da ngay bëgg di entraîner ah physiquement da nga bëgg a taxaw ah mystiquement da nga bëgg a pare moo tax booy bu nu amul jàppale dañuy sonn ci combat yi moo tax combat dina toll foo xamante ni yow tamit dootu doo ko bëgg a asaalu. Ah, waaw waaw. waaw fi mu nekk euh, li ma seetlu. Ah. mooy coono dafa leen commencé dab. fi ñu toll nii nag dañu commencé di sonn ndax li ñu defagum utiliser force bi ñu def ak korante bi mais ku ci ëpp fraîcheur physique rek mën nga daan fii sax jël war na fi mën a xem ah. su fekkente ni bëre nañu ci yoon. waaye dafa mel ni léegi nag dañoo jàppante rek ndax a ah, arbitre attan na leen. attan leen ah leen. ñu ngi ñëwaat ci géew bi. armée moom nee na bi la fi waaw bul sax sonn parce que bis bi tamit bis bu mag la mooy li ma leen di wax rek Fallou Ndiaye le promoteur numéro un moom moo woote. Ah. néew na nga gis promoteur bu woote. ci bis boo xamante ni dafa boot bis bu mag. Ah. mu réussir nii bon il faut nga xam liggéey bi il faut nga miin liggéey bi pour mu demee nii. tey Fallou Ndiaye man bi ma dugg see ci biir stade bi sax man dama waar woon. ah dama ne ah, am na ñu ñibbi am na ñu ñibbi. Ah, tey xale yi ñoom ñëpp mobilisé ah franchement tey ñu ne suba bis bu mag néew na nga gis promoteur bu ci organisé amateur yi wuy si la mais tey boo xoolee tribune amateur dafa daanaka macha allah ah mu ngay bëgg fees xoolal tribune bi tribune supporter yi ah. ndeysaan siflewaat na combat bi. ndeysaan arbitre ginnaaw ñu ngi dama tey baaraam Mama Lamine moo ngi lewtoo lii neex na loolu culture la loolu lépp ci làmb la bokk ndeysaan ñu ngi damante ay baaraam Mama Lamine numéro 2 ak Armée 2 ñu ngi damante ay baaraam fi mu nekk nii nag boo xoolee bi combat bi di doog commencé rigueur bi nu amoon ñoom ñaar fi mu ne dafa ah, wàññeeku. waaw dafa wàññeeku carrément. xam nga ah. Ah, gis nga xeex. xeex raak raak waaw léegi na ku jël na ku la ilaha illallah. waaw bi waay waaye arme deux am na lu ko bett waaye. waaw oh. eh, ñaari xale yi ñoom ñaar ñëpp da jar nañoo félicité ah. ah. jël. jël na dafa jël coup. Uh-huh. fendeegul. Uh-huh. mu bëgg a forcer boobu mu song nag. moo ñorul. te euh, xoolul fi mu jëm. Uh-huh. moo tax waa ji da koo xajal rek woñ ko. mu jaaxal waaw nag boobu aussi. fekk na. doyal na ci combat bi. waaw ah, ah, dafa doyal. ci combat parce que coup bi mu jël. Ah. ba nekk ci. Euh, coono waaw waaw waaw mi ngi noonu. bon je sais pas xaw ma ndax Mama Lamine foofu. stratégie la bëre ou pas parce que foofu dafa mel ni ku jël coup. di en arrière. en arrière mais li muy en arrière yëpp xel mee ngi ci moom. il est très vigilant ce gosse là booy tey bëri na bëri bu waaw booy bi gis xoolal fii fii Mama fii. dafa sànni coup ah. booy bi sànni ko beneen coup ah. maanaam remise ko. booy bu dox ci waaw gis nga. mu dàq ko bëgg ko forcer waaw dàq bi moo dàq bee bari. waaw dàq bari dàq bee bari. da xajal tuur la. Oh. Oh.